Bienvenue sur Salam Vision. Thank you. comme je l'ai dit les hip to hop hop move move to the nawleen ñu ngi fii nii euh, Pikine Redis fi benn ndaanaan boo xamante ni il est un jeune un un jeune pétri de talent parce que aujourd'hui le hip hop parle par la bouche des sénégalais et les sénégalais l'apprécient où qu'il soit te loolu noonu fierté la tey jii nii bay bay ngaax bi leen haut niveau di dégg Dip Doundou c'est parce que fii la ñu jaax te gëm-gëm moo di leen yëgal benn muy projet Liberté Musique Family muy Liberté Production c' est boo xamante ni c' est pour vous les rappeurs képp koo xamante nga jeune bu engagé boo xam ne bëgg nga bëgg nga li ngay def wala bëgg nga feeñ te mënoo feeñ ñëwal fekk ñu gàddaay gàddaay fa la lépp nekk téléphone bi la 76 la 476 38 50 yow mi yaay actrice di def ay série te mënagoo te feeñ am talent boo fa ñëwee di nga fa parce que on commencé nañ ay projet yoo xamante ni pour vous les jeunes mu nekk ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan si Salam Vision comme ça ñu wéyal waxtaan bi frère nuyu naa la. kay eh, jaayaf maa ngi lay fay bu baax a baax. ci loo nekk. sant yàlla bu wér kay. yaa ngi cool. naa yees nii bi. waaye journée bi mi ngi nii rek. nan nan nan nan nga nan nan nga yëgee tey bis bi la nee yow la ñuy seet si. waaw dama boole contentement rek yaa am gën a xam quoi. Mhm. xam nga nit ki boo nekkee si dara quoi boo gisee ñu lay bàyyi xel rek waaw da war a sant yàlla quoi yaa a xam. di bëgg tamit sama booy yëpp nag may nekkal quoi parce que ñoom kenn demul ñu des quoi parce que mënoon naa def dara ñoom ñu nekk feneen yaa am gën a xam bañ a mais tey jii gis naa leen ñoom ñëpp quoi jooy ma mboobe jooy ma dara quoi maa leen si bëgg di leen si ziar ñoom ñëpp nag si loolu noonu quoi. ginnaaw bi ngi leen nuyoo ñu ngi lay nuy di la dalal jàmm fi nga xamante ni nii mooy Salam Vision dañu bëggoon xam kan mooy Big Son ak Big Son bi lan ko indi. yee Big boo xoolee big bi quoi ça veut jàpp naa ne man dama ndaw sama jëmm quoi sama jëmm ji boo ko xoolee rek dama ndaw quoi mais boo xoolee samay sound ak lu may def nekk lu ndaw quoi. parce que mental laa doxee man <laughs> yaa ma gën a xam. ah da bëgg a wax big ci mayen quoi. waaw big ci mayen quoi. nan la la arrivé bi. waaw tour bi noonu rek boo xoolee sound bi quoi boo xoolee sama tur jëfee ko son bu rek son bi laa jël quoi bàyyi ko noonu bàyyi la si des mu dem quoi ma indi big son quoi yaa gën a xam. ok nan ngay dund ak ñi nga xamante ni ñoom ngay àndal ak ñi nga xamante ni ñoom nga nekkal toute la toute la journée maanaam fi ngay liggéeyee fi ngay joobee nan nga koy ngay dundee en tant que en tant que jeune boo xam ne day wut ak en tant que rappeur ñaari vie yooyu nan boole. waaw gis nga de ñaari dèjà maa ngi ko boole sama benn métier boo xam si maa ngi si job mais teew tamit heure ma wàccee tamit maa ngi nekk si hip hop bi nawet maa bi quoi yaa am xam ak booy tamit may ànd ak ñoom ñëpp ñu ngi si comme ça ménagère ñàbbu yaa am gën xam quoi. noonu rek la affaire bi du leneen quoi parce que affaire gëm-gëm kese laaj yaa am gën a xam quoi. ji fi kañ man boo xoolee nag maa ngi xool après corona bi rek laa doon def ay freestyle yooyu noonu quoi ba mujjee def ay son quoi yaa am gën a xam. ñaata man fi mu xool am naa trois son ak ay freestyle yu nii. am nga clip. waaw am naa deux clip quoi. lan mooy projet bi instant bi waaw projet bi nag après dinañ si ñëw quoi parce que ñu ngi si kawam quoi ñu ngi song quoi. doom yi daanu. waa gis nga ndànk-ndànk rek lu jot yomb quoi loolu lan jàpp yaa na gën a xam. ok ma bëggoon xam ñi nga xam ne ñoo nekk au niveau kan moo ciy sax idole quoi. sama idole man benn rappeur laa daan déglu muy Kaaw Pirip Dip quoi bañ na ko ba ma daan leen nii sax ay saawonam quoi moom laa daan déglu ba mën a déglu riim yi quoi xam ne muy tegoo si temps yaa am na xam quoi parce que sans benn mag bu nekkoon bu ñu daan wax sa góor quoi nekkoon si groupe bi moom ko daan proposé quoi yaa am na a xam. pourquoi ce soit loo gis ci moom. waaw am na talent man na rab carrément. xamul dara. ah eh, mais man damay jàpp ni man maa gën a. aay kooku de jib xamul dara. mais man damay a aay parce que sama bopp laa gëm quoi. moom jàpp naan moom bu defee benn bu ndaw man war naa mën a def benn boo xam ne si da ngay doubler quoi. yaa am gën xam loolu laa jàppee bopp quoi man. effet bi noo ko dundee. waaw laa wax effet bi rappeur contour Ngaaka Blindé ak lu bëri li nga xamante ni mooy actualité rap bi nan ngay dundee effet bi pourquoi génne woo non déglu naa leen sax mais quoi. effet bi ñoom seen problème la ñoom ñoo koy gérer. mais tout le monde tout le monde est dedans ñëpp ñëpp wax ñëpp a ngi ñëpp a ngi poli pourquoi pas kii bu ñëwee def effet bële yow ñëw génne sa effet boobu peut-être loolu gëm-gëm la peut-être mën na la mën feneen voilà. waaw peut-être loolu yoon la quoi mais gën a garaaw loolu la def quoi yaa gën a xam hmm. fu teg suñu bët dafa dépassé ay yaa am gën ku gagné pour yow bi waaw classe bi dégg naa ñaar ñëpp dóor nañ quoi ah yaa a xam waxuma la loolu de kan moo gagné si classe bi question réponse laa laaj non non kii daal nee na mooy champion kee nee na mooy lii quoi ba tey tontuwuma de ah, ah. bu fekkee da nga ci ab rapport kan mooy kan mooy moo ci gagné quoi kan nga ci gis en tant que rappeur en tant que un jeune boo xamante ni day dund hip hop kan moo ci gagné quoi Ngaaka Blindé Akhlou Brick waaw maa ngi koy dund carrément quoi mais instant bii man mun ma laa wax kii boo gaje loolu dama koy baax. non rappeur bu tapet am na yow mooy tapet nga de. non non du question de tapet sax c'est man dama leen lijjantiwul man sama bopp laa lijjanti quoi man jàpp naan quoi bu fekkoon man ak beneen artiste la quoi damay fexee def ba nga xam si dama koy gagné mais ñoom bu ñuy gagné seen biir ñoom la quoi. xam nga bu doon tribunal daanu na. Ah. bu doon tribunal ma waaw kon ça moo tax je te dis kan moo gagné ci classe bi ak lu bëri nga xam benn ci li nga jot a déglu yow boo doon rappeur boobu en tant que rappeur en tant que jeune boo xamante ni day tëdd guddi di bind son kan moo ci gën a ay texte. waaw texte moom ñoom ñaar ñëpp risque la nañu. dugal de ah dugal moom di ko def foog nga wax kan moo ci daax rab quoi. no non non non non bàyyi bàyyi mu sed bàyyi mu sedd. yow dugub bi yow yow man instant boo demoon boo demoon côté Mbour nga dugg Mbour. rabal boo ci laaj danaa la Akhlou Brick moo gagné yow wax nga dëgg fii Pikine fii tout près boo yuuxoo waa Guédiawaye dégg la yow mu na nga wax kan moo ci classe bi da nga war a wax quoi man dama war a fara ngaaka bi leen <laughs> ne la dama ne la dama ne la en tant que un jeune rappeur boo demoon biir Mbour nga ne kan moo gagné ci classe bi il faut te dire Akhlou Brick moo gagné ci classe bi mais yow en tant que jeune nga dëgg Pikine boo yuuxoo ñu dégg la waa Guédiawaye kan moo gagné ci classe bi man nga ma tontu wax ma ngaaka wax ma Akhlou Brick non xam nga tey ji ma tëboon ne la Akhlou Brick ñoo gagné carrément nee na Akhlou ñoo gagné dégg nga nee na Akhlou Brick moo gagné yéen a ko déggandoo Big la dëgg xaamee ko bu baax comme naa nag nee na Ngaka Akhlou Brick Akhlou Brick moo gagné ci classe bi man nag du samay wax yaa ko wax ah man damaa pare gu ba moom moo wax yow yaa ne Akhlou Brick gagné na yow waxuma waxuma de <laughs> yow Ngaka yow gis nga ne Ngaka na coupe Ngaka jël na coupe bi nee na mooy bi yow nga ñëw ne Akhlou Brick moo gagné yow booy respecté woo ñu de xam nga fan laay waxee man quoi man bu ma tëbee ne Akhlou Brick moo gagné yow man ngaa waxee ni fii quoi ak ni nga waxee sànq mën ngaa waxee ne wër def noonu quoi parce que Pikine ak Guédiawaye benn lan yow fi ngay waxee nag da ngaa jàpp ne man dama war a faral ngaa ko parce que Guédiawaye la dëkk man ma dëkk Pikine non non. dama <laughs> la bëgg a dugal man yaa ngi posé damay question de man bu la dugal foofu da ngay dugal en tout daal yaa fi ne Akhlou na. Ah, man moom ma doon joxe moom Akhlou Brick laa jox. <laughs> yow boo yow yow man damaa jaamu ne man ma fi ñëwee da ngaan na leen parce que dama boy bu dëgg bu dëgg côté Mbour du ma du ma tudd ah. la peut-être dem na dem na dem na fii nu mu koy sax moom ak Diaz Gana peut-être su ma waxee di nga xam boy bi ma bëgg a wax ki kii gën a sonal Diaz Gana ci game bi dañ ko dañ ko invité émission mu ne Akhlou Brick moo gagné peut-être côté boobu la dëkk mais yow ñu invité la nga dëkk fii nii Pikine boo yuuxoo Guédiawaye dégg la nga ne Akhlou Brick ñoo gagné foo teg loolu waaw parce que Ngaaka dafa daw. continué Ngaaka dafa am xaalis jiif dugg a ma Ngaaka dafa daw. <laughs> non dama jàpp ne dafa daw quoi ndaxte moom dafa ñëw carrément classe bi jeexagul mais indi kubam ni moom moo gagné quoi te affaire jeexagul boo xoolee quoi ñaari victoire moo am quoi parce que ñee dañoo indi champion moom mu ñëw indi kubam. waaw ñee dañoo indi. allo ah, bi waaw amuñ dara. ah peut-être xamuñu dara mais man sama bopp man daa jàpp naa ne waa man maa leen man ngaa ko. bu réew ku ci gën a aay a aay non affaire moom ku jekk suma rom duma rek yaa ma gën a xam. nga ne Dip xamul dara nga ne Dip xamul dara. non jàpp naan man maa la gën a. mais yow nee nga Dip xamul dara. waaw Dip xamul dara. <laughs> booy ku dëgër fit la barki Serigne Bamba yow léegi buñ la newoon classal Dip quoi ñu ne toogal nii rek nga improviser classe Dip looy wax. non Dip du ma ko classe. eh yow kii kon kii amul fit yow da ngay yow yow rabul yu mag yi da ngay kon boog da ngay jël benn booy boo xamante ni nii peut <laughs> am na talent quoi nga def ko day classe men yow koy tey jii nii buñ la fay la ay millions dugal la studio ne la classe dip doo classe dip non dama koy def ah bu bari nga ne doo classe dip wala nga bëgg xaar léegi yow ñu jël ñëw jël la fay la ay millions ne la classe dip nga soo ko classe waaw bokkul nga wax wax air bi quoi <laughs> booy waa men dafa ragal waa Ruptile de non non time is money <laughs> time is money léegi fan nga toll ci projet yi waaw projet yi nag maa ngi si kawam moom carrément maa ngi koy song quoi door mi daan rek ñëpp xam ne génne nañ quoi ngay wàcc instant bi ci décembre bi waaw des bi ñu ngi waaj benn clip quoi bu ñu war a def waaw ñu ngi koy waaj mais duggaguñ studio quoi ñu ngi koy waaj. après comme je le dis yéen ñi seen émission bi clip boobu ngeen di ngeen di gis ci suuf mooy daw moom la il est un boo xamante ni comme je le dis il engagé il est dynamique jeune boo xamante ne nii il fait partie l'un de l'un des meilleurs de sa génération parce que ñun duñ seeti koo xamante ne nii cooma la tu vois parce que fii képp koo xam seeti na talent comprendre nga kon yéen nga xamante ni hip hop moo leen ñor ñu leen ngeen jàppale booy bi parce que il est il est engagé parce que engagement moo tax ñu ñu déplacé wu tu bu amuloon engagement du fi ñëw comme daanaka kon yéen a dëkkee ñu ngeen jàppale booy bi parce que booy bi am na talent da bu bu génnee ji toj ñu koy dégg fi ñuy dégg ngaaxa di ko dégg fi ñuy dégg diib loolu fierté Pikine la comme naan parce que Pikine bu dul coopérative diib kan nga fi déggaat kenn tu vois kon ñoo leen ngeen jàppale booy yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di dund hip hop parce hip hop hip hop mooy loolu quoi gars yi mbalax bi leen topp quoi boo xoolee kaw bi dépp wan bi kaw ñoom ñoo si réussir booy xool. koy loolu laa jàpp man quoi. mais wan wan jël na yoonu man waxtu ay waxu wan. waaw léegi dafa ñëw jël ak mooy loolu di génne yu son yu ñàkk fu la. waaw teer yoo xam ne man du ma ko déglu. waaw moom la rek quoi parce que booy xool nit ku la arrange rek ngay def boo xoolee. loolu ah, da ngaa ànd ci li mu def. moom la lu waay def en tout cas daal man li may def laay def quoi man. dund ma yow yow wan daw na game bi man yow wan dafa génn ci game bi moom jël na beneen yoon. waaw a ah, moom dafa def bëgg-bëggam rek quoi yaa am gën a xam. yow boo takkee jabar nii nga def da nga trahir. non non man ma nekk dama si nekk du nekk si hip hop ba mu may ma lu ma takkee jabar ma koy war non non jamais. Ah. waaw. da ngay encouragé nga wan quoi. waaw dinaa ko parce que bëgg-bëggam la topp quoi yaa am gën a xam. Ah. kon mu ngi si yoon bi. waaw mi ngi si yoon bi moom. parce que Pikine la dëkk rek quoi. waaw ku ne li nga jàpp rek moom jàpp nañ mi ngi si yoon bi quoi am nañu jàpp ne nekkuñ si yoon bi quoi yaa am gën a xam léegi clip bi nga xamante ni moom nga moom moom mooy daw noonu ci suuf euh, clip bi nan la la arrivé son bi nan la nga ko dundee quoi nan la bi nag booy xool nag quoi doon naa ko lii quoi def naa son bi avant sax soog a génn clip bi quoi wax ci son bi gën a xam waaw son bi dóor naa ko dab na quoi am na gars yi lii nii am na gars yi signé am na gars yi lii quoi yaa gën a xam mais man jàpp naan man fu ma jàpp rek quoi jàpp naan loolu dafa ndaw quoi ban couplet moo a neex ci son bi waaw couple bu quoi couple bu njëkk bi. loo ci wax. te monsieur laaw damay jam bu raa nekkatuma jam jàpp ay rapport yóbbu fan képp ku ma song dama lay daan dundal la nekk si àdduna fi loo fi seen dafay jeex ana bon li nga daan dund tey nee mes daan taxaw wàll tux bon te sa xol mujj fees man fu ma jaar damay rafet te dara du des sa wax bëri nga mel mel ni muusa buy cop cop bu du jeex dafa tàq tàq bu si kaw kaw fekk la nga yëngal si suuf may pëndal si kaw doomu ëpp mëni ba boo nekkoon président kaw sa gel bi nga def sa xol xam naa ñi koy caw boobu ne si job ba a ne si waaw classe bi quoi man dama bind rek sànni quoi. non am na koy waxal booy waxal léegi li fi nekk bul bul ruux man xam naa ne am booy waxal wala yow ay daabal am ngay waxal yow booy booy nga xam ne booy dafa mën a waaw man na rab mais lu mu man man bu ñëwee dafay fekk ñi gën a tàng. Daabu M <laughs> woo dama koy woo direct ci ko man te buñ ñu géewee dañ koy faj sax. <laughs> xam ngeen Daabu mooy booy booy booyu KBC boobu xam ne instant bi mooy yëngal bi meen. <laughs> waaw KBC sax buñ ñu yeewoon dañ leen faj quoi la wax BM. nee na ko BM prono. waaw dafa am talent de. waaw parce que BM moom dafa jàpp ni quoi moog jazz la kii dafa jàpp ne moog BM la quoi noonu la demee hmm. waaw. instant bi nekk ko ci benn label. non ñu ngi si benn label quoi dox ndaw bit beude suñu benn rappeur bu mag bi seeg moom bit maker la quoi job quoi moom joobal na ma benn bit koroog ban daaj ba ngay ba xam ne instant bi dem studio tourné rek moo des quoi parce que label bi ñaari studio la benn mi ngi Sangalkam benn mi ngi Kër Massar hmm. waaw seven pro waaw bi hmm, kon foofu nga nekk waaw mbaa joobaa ngi cool foofu waaw mi ngi cool quoi mi ngi nice décembre bi waxagoo ma la nga ciy waaj de waaw des bi ñu waaj quoi yéen a ngi wàcc yow wax ci projet dara. non kumpa doon kumpa. ah après ñu laaj sa ménageur ba xam ndax dinañu wax ci projet parce que ñun bëgg nañoo xam lan la Bichon di waajal ci décembre bi. waaw peut wax leen ko quoi yaa ngi a xam. parce que comme je le dis maa leen di maa leen di label boo xam ne il se trouve à Gadaye label bi lépp lay def day day tourner film xam nga day tourner son lépp lay def man day day couvrir ay événements comprendre nga léegi nag yéen ñi nga xamante ni nii yéen ay yéen ay rappeurs yéen nga xam ne yéen ay jeunes rappeurs yi nga xam ne vous êtes engagés décembre bi am nañ ay projet label bi am na ay projet pour yéen xam nga dina teg ay saay fa tu vois képp ku képp ku gagné ñu dugal la ci label bi ba pare may la ay clip xam nga loolu yëpp c'est des avantages pour ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan nekk ay rappeurs mais c'est un avantage boo xam ne pour yow la wooy loolu moom dama si kontaan trop quoi yaa am gën a xam parce que bu ñu defee ay leeni saay fa dañuy da ngay xool des fois yenn artistes yoo xam ne si dañuy mën lu ñuy def mais duñ am jàppale quoi mënin bi nga xam ne si ne dina dinañ mën a dem tourner si studio bi ba pare tourner seen i clip duñ am quoi te duñ am ko leen finance quoi yaa am gën moo tax bu ñu defee noonu ba booy wane seen talent quoi dina leen arrange si benn côté yooyu noon quoi yaa am gën a xam. ah oui loolu jàpp quoi. avant avant avant avant avant ngay ngay ngay nga ñuy may dañ lay freestyle. ah dama bëgg nga wax ñan ñoo lay ñan ñoo lay jàppale ak ñan ñooy staff bi kan mooy manager bi nga présenté loolu noonu tu wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo fi nekkoon ba dara dara. xam nga ñoo ñooy jàppale Big Son comme ça nga mën ñu dene fii saal ñu tàggatoo. waaw fii nag bu ma fi booy xool nag ñàbb moo yàgg nekk sa ménagère quoi ak be ak adjoint ménagère moo nekk moo nekk booy lu fa quoi ñoo nekk ndoon fee KMR quoi. waa KMR nag ñoom maa leen bëgg bu baax nag parce que noom kenn demul ñu des quoi yaa am gën a xam parce que fa laa dooree affaire bi sax fa laa yarew fa laa màggee quoi am gën a xam quoi ba tey ñu ma nekkee nii quoi mënu maa dem bàyyi leen quoi yaa am gën a xam moom waaw booy xool ay yankooba si staff bi alsan ay Medzo Soleil Fall Press ñoom ñëpp si biir quoi. booy bi xanaa day xeesal. ah booy booy booy ko mu dund dundam quoi yaa ngi gën a xam. <laughs> booy bi day xeesal. <laughs> moom dañu doon tase man ak moom mais melu woon nii. non booy bi day xeesal. <laughs> non loolu laa jàpp man. mooy nekkal góor tuuti gaan. <laughs> ennemi dundal waay ennemi mënoo si ñun tous ennemi dundal waay ennemi mënoo si ñun tous ennemi dundal waay dugg naa sa koñ tawee sama troisième baaraam wax ma koy ñeme jug koñ bépp laa tàngal ñëpp taxaw boobu dafa ko ñëw leen ko aju. ma yàgg faj seen soxla yi dem ñëwaat fiis ba mel ne atu foo ma fekk dama yàgg di bëtal di nga xam ne fiction may fépp surtout tabu yàlla taal san si mat moo gën nga ko fay. moo gën a xeesal bi xoolal kanamu booy bi. tamit mooy lool noonu léegi man dama mais dama bëggoon xam yow sa booy dañu lëw mun naa gis ngay rëb léegi kenn yuuxuwul kenn deful dara lii du game man il faut la ñu wax tamit na yuuxu yëngal fii wala léegi avant ñuy jox sa ménagère avant ñuy tàggatoo comme que loolu mooy sa loolu ñooñu nga doon remercier dañ lay jox maay bi nga taxaw fii freestyle xam nga foo ak say booy tu vois mu yëngoo yëngu comme ça on va voir. waaw ok. mën nga toog noonu neexee mën nga dama ne cëpp fëgg koŋ-koŋ naa ma doo génn mën na ma ma àgg suuf met moom ma sa jéeng indi fi law diis xóot ba gën a xóot teen gis na ne su def sama mëni du ma tàggu kenn lu fu ma gën a fi law defee seen fàtt gëmin yëpp te ne mi du ma bàyyi mu seet maa ngi seen kaw ku ne na wax fi maa fi nekk du ma mas taay seen fi law yu càngan laa te xaj topp sama ginnaaw nekk ngay daj mun na ma bu ne ma càq ne tàggeem te maa fi càq daa seen fi law si kanapé waxante gëm dama lay bëgg ma waxante ñëpp ma faani Sadio Mané talent kese laa fi wone fu ma dem dama wone amul tegg tànk ñoo fi ne way daa mel ni Pikine am na rab de ah daa mel ni Pikine am na rab de daa mel ni muy cool de mais daa mel ni boobu dafa dafa dafa dafa engagé waaw ñuxal ñuxal lii mooy hip hop lii mooy game bi lii mooy hip hop lii mooy ni lañ ko bëggee xam dañu bëgg boo leen génn see gars parce que lii mooy game bi di la ñaanal di la wax am nga boo xam ne boo ko toppee rek ci waa réussir kon bul déglu kenn parce man comme li may faral wax di wax rek nit ki lépp xam ne gëm na ko bu ko barki Sëriñ Bamba nekk ci yàlla da ko ciy fekk ci xaar kenn defal li nga war a def après game parce que yàlla dafa bëgg ko xam ne day def te du xaar kenn comme naan nga conseil boobu laa lay jox en tant li nga xam ne moom ngay àndal ñu jàppale la parce que nit ki dañ ne feccum li boo leen ko topp boo leen toppatee talent bi rek ba barki sëñ Bamba day raw diib day raw ngaax blende kon ñuy kontaan ci yow bu baax a baax dañuy jox sa manager mu tàggatoo xam nga wax projet yi et puis ñu teg. Eh, salaam gars yi di bëggee gars yi ku fi teew di nuyu El Prési Yankoba di nuyu waa peeka Boy waaw ndax tim bu bees la. ah kon bàyyi ngeen Tenza. non bàyyi non Tenza bàyyeeguñ ko ba tey mooy link bi suuf quoi di nuyu PK Boy di nuyu sama artiste di nuyu képp. ku fi toog maa lay bëgg sa tur ak sa sant di leen wax seen jox laan seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax ci tardement bi waaw comme ni nga ko posé sama artiste rek ñu ngi ci projet yi baax a baax a baax ñu ngi wàcc décembre bi benn concert te fii la nga bëgg dóoree ci kaw scène bi ñu gars yëpp bëggee ñëpp caméra yëpp wër ñu ñu ci kawam baax a baax ñuy door benn piscine party tamit ci biir décembre bi tamit ñu ngi koy waaj bu baax a baax a na clip bu nekk suñu kanam moom lañ bëgg a tourner nii incha allah. di ko bëggeewaat gars yi di wax pikin dafa manqué loo xam ne dama ko seetlu yeneen side yëpp Géejawaay Kër Masaar Grand Yoff ñëpp am nañ ko Pikine fii kimpi bi dafa dee lool lool lool lool imagel ngaaxa bu classé Akhlou Brick Akhlou Brick classe ngaaxa dib tëlee fee classe Akhlou Brick imagel xoolal bi nu muy tàngee maa ngi nga ngay posé benn question nga naan ko diba Akhlou Brick kan moo si gañ morom non tey bu ñu xool rab bu jaar yoon dañuy jox Ngaka trophée bi. na na tey xool hip bi tey kan moo ko gagné dañuy jox Ngaka trophée bi. ancien Cameroun la fi ak lu biir rap te boo xoolee Ngaka ñaata yoon la génnee clip si biir semaine bi nu mu deedee dem na kaaw la moo tax waa ak lu biir topp ko si yoruñu te ñu dañuy ñaan yàlla fu ñu fu ñu fu ñu fu Ngaka toll ñaan Big raw Ngaka ndax am nañ suñu gëm-gëm te incha ñu ngi ci yoon bi te duñ tegg suñu tànk benn yoon moom bu dawul duñ daw ñu ngi ci kawam ñu ngi ciy def lu ñu war ñun macha allah amuñu doole nag dañuy santaat yàlla bu baax a baax a nuyu PDG moom mu ñu di nuyu Beuzy suñu artiste bu mag bi ndax moom yàlla daa dogal moom la label bi signé si moom booy ñoo topp si ginnaawam. di bëggee waa ñu fi teewaat ñëpp ñëpp ñoom signaté ak mafia bi yëpp maa ngi leen di bëggee waat di la waxaat PK booy bi. dafa nekk bañ ko tijjee yaagul matagul sax at waaw bañ ko sosee yaagul soleil mooko ko sos biir gàlleem néegu beusi ñu ko sosee man maa ngi Pega Boy Ting bi Boy maa ngi dugg si hip hop 2019 laa si dugg maa ngi si dugg booko ko estaf kaw périb dif avant ma avant ma doon ménageur kii jaar jaar naa ba pare doon Mamour Simbour doon boo ko estaf kaw périb dif ki ñu moor moomu si yóbbu woon waaw di bëggewaat gars yi di leen waxaan nag ñu ci kawam di waxaan nag waa Kimbi Boy waaj leen Big Son day dem incha allah si kàttanu yàlla yéen yi ngeen toog nii yëpp yëpp di dox seen temps allah ku nekk di nga yor caabi oto daa loolu gëm-gëm la fierté la ni lañ koy ànd di defee avec DJ Big tout est possible c' est du peuple l'homme qu'on a choisi pour qu'il choisit xale bi yaayam l'homme qui n'a pas peur d'avoir des cœurs le seul et qui dit I am the future of the world people je suis l'avenir de tout un peuple quand je parle j'ai l'air que je fais partie l'un des de sa génération et je que vous sentez ressentez là où vous êtes xool gars yi bu ñu fi jógee fii nii dañuy dugg Mbour xool gars yi waa Mbour nan la ñuy préparé xool Mbour nan la ñuy dundee décembre bi ni lay demee saa su ne en tout cas ngeen toog xaar ñu restez scotchés d'ici là portez-vous bien parce que tout ce ni lay demee Sidy Diop dana dana woon après koor gi waaye man dama ni lay demee let's go les bu leen neexee ngeen yuuxu toj mbaar mu naan cas ah! ma job si gém bi moo bëri xam naa di yéen koy mën a fay job na mën na xam naa fu may teg sama tànk te kenn du ma tay ku bëgg ma binde wa teg si sama talent dama koy jaaj yee dugg naa sa koñ ku nekk laaj pëndal ah waxa sa gaay waxa du bàyyi sëgam kaana mooy bàyyi man du ma si taay ma def lu nice teg ko si ice waxa sa gaay man duñ ma jaay waxa sa gaay waxa du bàyyi sëgam kaana mooy bàyyi man du ma si taay ma def lu nice def ko sa eyes wax sa gaay man duñ ma jaay yaa man duñ ma jaay bu doy ma dolli fii ene bi dundal waay man duñ ma jaay bu doy ma dolli fii ene bi dundal waay man duñ ma jaay bu doy ma dolli fii ene bi dundal waay enemy enemy enemy dundal waay Waka for life Donzak in peace Yap Sultan my side